moom boppam rawatina ci li jóge ci mbay meek càmm gi ginnaaw bi nga visité stand yi ci yan levier nga bëgg a sukkandiku ngir doxal politique bi nga bi nga xam ne moom nga bëgg Sénégal moomee boppam. waaw damay njëkk di njëkkee di sant sant yàlla d'abord ci nu ma mayaatee ma ñëw ba fiara bi ndax euh, daaw amoon naa gàllankoor yu taxoon mënuma woon ñëw waaye at guddee euh, dama doon ñëw ci fiara bi. te du ci feera bi parce que fii am yenen exposition yi fii am soit Renades def ko soit Salam Adam def avec le Saladam je pense que ñu bëri ci acteurs yi nga ñu ngi autour exposé bi ni am na ci ñoo xamante nañ fi sama kanam wala mo nañ gis ma jëflante ak ñom ci walum wàllu notamment ci élevage euh di félicité tamit ndokkeel bu baaxa baax ñi nga xamante ne ñoo organisé salon bi ndax gis na ne saa yu ñu fi ñëwé

té wóolu naa ko ndax loolu motax ma dénk ko département bi nga xamantene département bu am solo la ma ngi doon wax sànq ne première fois ma koy gis fekk ne nek na ministre ba pare premier conseil des ministres la ko nuyu nek xana yo yaay monsieur Diagne mu ne ma waaw té mosuma déggante ak mom téléphone à part après après sax guñu téléphone dañu daje rek conseil des ministres mais lima am ci mom moy consultation à travers premier ministre ak CV ak recouper ay témoignages yu bëri bare bëri ak consultation bi nga xamante ne premier ministre def na ko ci te xam naa ne politikul te santuñu ko mu politique kon lu ñuy xaar ci moom mooy Sénégal dafa am problème boo xamante ne bu ñu ko réglé réglé lu bëri ci suñu problème waaye bu ñu ko réglé wul du ñu mën a réglé benn problème mooy xiif mën a lekk ci loo xamante ne yow da ngay béy di dunde di dundee loo béy waaye bu ñu weeree ne rek bu ñu bëggee lekk loo xam te ne balaa ngay mën a def dara dinga lekk ba pare weer ko ci fokk ñu dem ci bitim réew jënd ji te waa bitim réew mën nañu comme ni ko defee daaw jékki-jékki ne jaayuñu kon mënuñoo moom suñu bopp ci moomeel suñu bopp bi nga xam te ne moom la ñuy ut wa rawatina ci wàllum mën a mën a xiif lekk konti sa bopp mu wóor ma ne nag que ci anam yii ministre bi di tra di liggéeyee. te mu nekk koo xamante ne mbéy daf ko neexoon ba mu jël alalu boppam dugal ko ci ak ni nga xamante ne man yàgg naa fi ñëw génn ci foire bi ne pourtant suñu solution solution problème yëpp mu ngi fii xanaa nguur moo ko desee fulaal yaakaar naa ne sama politique boole ko dénk ko koo xamante ne mën na liggéey bi mu dem di waxtaan ak ñoo xamante ne solution mu ngi ci seen loxo man am naa yaakaar gu mag ne loolu bu ñu ko boolee résultat yi ñuy séentu dinañ ko am te dañ ko am ci mbéy mi dañ ko am ci transformation tamit parce que boo visité stand yi nga xam ne ay jàmbaar dëgg ñoo fi nekk te lu ñuy jot a def rek wane na ni ñii ku leen ku leen gunge ci lu ñu soxla dinañ la jox yow li ngay xaar ci ñëw kon ci tànk yooyu lañ taxaw ren gi bu ngeen xoolee am na ñett mbir yoo xamante ne lu jar a taxaw seetlu la mooy li ma njëkk a wax dem nommé koo xamante ne nommé woo ko parce que da doon politique kese mais dañ ko nommé parce que sax du politique waaye dafa nekk loo xamante ne daf ko xam Il passion d'abord au-delà du fait que dafa bëgg a jëriñ deuxième toftal secrétaire d'État qui ko le luy encadrer paysans et coopérative Et développer coopérative c'est ce qu'on la di ministre bi nga changement institutionnel important bi nous nous mooy ñu première campagne agricole donte bu ñu toogee yàggul ñu ñu def ko parce que en moins de deux mois lañ ko def indi nañ innovation boo xamante ne tax na engrais ren lu mu doon jar daaw wala ñetti at yi weesu ren lay gën a tuuti ci njëg te leen ren lay gën a bëri ci li nga xamante ne moom lañ nar a teg sur le marché jox ko béykat yi ci wàllum engrais waaye ñu ne nag muy engrais gi muy ji yi dañ ciy boole arme bi ren ak gendarmerie pour que mu bañ am ñoo xamante ne dañ ko dañ ko téye ci yoon wi ba mu tax du egg ci baykat yi ñu ne lu ñuy dimbalee baykat gi dafa war a dem ci béykat bi bay ci tool wi waaye warul am kenn koo xamante ne dafa nekk intermédiaire ci digg bi téye ko ba du egg ci béykat parce que assi ah, boo ko defee résultat bi ngay xaar ci terrain bi dafa am parce que li nga doon war a def ci terrain pour am résultat boobu eggu fa kon changement yi teg ci man sant ko ne ko demal waxtaan ak acteurs yëpp nga jël temps bi war nga bañ a déglu rek say service waaye nga déglu ñu nekk sur le terrain am jafe-jafe nga laaj leen naka la ñuy saafara seen jafe-jafe ñu wax la seen pexe parce que ku nekk ci tool am jafe-jafe ne lii bu dañoon sama tool du ma am lu may jooy kooku moo gën a wóor a déglu ku koo xamante ne dafa toog ne bind naa lii laa yaakaar wala lii laa liir wala bu ñu demee ci tël dëkk looloo fa am parce que terrain bi moo gën a wóor loo xamante ne egg jógewul ci terrain bi ñu ne leen nag nañu réformer la loi sylvo agro agropastorale mais ñu def ko dans une approche de participatif manam ñepp wax ci mu tenir ay réunion dem séti ji nit ñi té xamna né ku nara wacc ci terrain bi la parce que commencé na ko té duko ko waye waaye ki mu ko toftal tamit lool la ko sante xam na dañ ci taxaw buñu dawalé dawalee togaat toogaat tëggaat suñu budget defaat luñu am yéne def ci mbéy mi buñu ñu toogee évaluer nañ xam ndax ñun ñu ngi ci yoon wi wala né ko ci yoon wi bu ñu ci yoon ñu gën ko baral bu ñu nekkul ci yoon wi ñu gën a joyanti pour tegu ci yoon wi te baral tànk yi parce que sénégalais yi loolu lañuy ñuy xaar ci ñun te yàkkamti nañ trop parce que jafe-jafe yi tar na kon maa ngi leen di sant di bu baax a baax di leen gërëm di leen wax mbégte gi ma amoon nag ci ñëw fii te am naa yaakaar ne bu ma ñëwaatee déwén incha allah dinañ am ay jéego yoo xamante ne def na ko def nañ ko ci euh, accompagnement gouvernement bi ak euh, nguuru Sénégal yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah